muy daayira nuur daayira yi ni ku xam kër gi xam leen ci jàng ak jàngale kon buñ leen fekkee fii tey ñi ak njabootam toog yër alxuraan di jàng dañu wax wala xarwa ñaan yàlla yàlla yool bépp fekk foofu kon mel na ñi ngi toog benn soxna dañ ko jox mu présenté wax turam wax lan moo sabab ñu toog fii di jàng alxuraan soxna si asalaamaaleykum yaa ngi ci jant bi TV. maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi tudd aja Aji Kebe di set ci sëñ Modou di leen wax ne dal leen a fi fii ci kër sëñ Modou Mamoun Niang gi ci gaar bu Ndar waa njabootug sëñ Modou xam xam ne bu ñu xamul alxuraan ñu laaj leen ko ndax seen bay. ku ko xam-xam ko ci ak xasida kon ni dong lañ ko mën a fayee képp kuy njabootam nag yaakaar kan, aja jàngal na la fi ay njabootam dong nga fi daje. Modou Xabane jeng. nekk fii ci kër gi waaye sëñ ma muur maamu ña yar ko. laaj nga ma loo xam ni jombul am na ñu ma ci gën a mën a yaatal waaye mën naa cee wax dara euh, jiitu woon na xañ na ñu laajoon ma ci muy jëmm joo xam ni jëmm yàlla def ay kiimaan la ci moom bokk ci njabootug Serigne Touba di sëtub Serigne Touba xaqan euh, ndax ni ko ñëpp xamee xañ na dañ koy waxaat rek euh, Serigne maam Mor mu soxna jaara di mag ci sëriñ bi ci saayir moo jur waajuram bu jigéen muy soxna Aminta Kanni eh, eh, Mbacke radiyallahu taala anhum eh, Serigne Fallou Mbacke radiyallahu taala anhu di rakki baayam ci moom it ñu bokk jenn ndey di rakki maam Afe ñu bokk jenn ndey di soxna Awa Buso radiyallahu taala anhum kon kooku ci digg dëkk bi la bokk wet goo laalit ci ci dëkk bi mu bokk ca ci ñu tedd ñi nekkoon koo xam ne ku ku ku la. Euh, ci tawfiq sunu borom ci wàllu xam-xam ndax xam-xam bokk na ci li nga xam ni moom la islaam di di tàmbali di xool ci nit bu jógee di ko ko nawee xam-xam bi mu gënoon a ràññiku nag yëpp la ràññiku waaye xam-xamul islaam da cee feesoon dell te jaaree ko fi ko war a jaaree ci langue arab nga xam ni am nay jamono ci dëkk bi moom rek moo fi nekk cadre boo xam ni moom moom moom moom la moom moo ràññiku ci loolu ci ay jamono mus nañ ma am na ko xam ku ñuy wax Moustapha Diatara mii nga xam ne mooy xalifa Baye Sëñ Diatara wax na ma ci loolu ni ma am nay jamono yoo xam ni dëkk bi loolu nag yàgg na jamono jamono yi sëñ Fallou la xañ na dëkk bi bu ñu gisee journalu arab dañoo ne woon amul sax ndax ñàkk xam culture arab moom lañ njëkk a gis ne moom lañ njëkk a gis mu dugal fi journalu arab jëlee ko bitim réew kon wàllu xam-xam moom euh, da koo peegoon te lim ci a xam ci wàllu xam-xam mooy histoire Serigne Touba bind na ci ay téere def na ci ay maqaalaat def na ci ay xitaab def na ci lu ne jàngale na ko bitim réew fu ne def na fa ay colloque ay conférence lu ne def na ko ci bitim réew ngir xam le Serigne bi fépp fu Serigne bi mos a teg tànkam it te mu man faa teg tànkam moom dem na fa gëstu histoire ba euh, ba mu wér ko mu bind ko def ko ci ay archive am indi ko nekk koo xam ne tamit euh, féete woon njabootu Serigne Touba gi euh, fépp. ndax la dalee ci waajuram wa alaaji Fallu Mbàkke radiyallahu taala anhu wardaahu daan ko istiqbaalal euh, ay gan ay duyo yoo xam ne ñu jóge bitim réew di taxaw diggante gan ñooñu ak Serigne Fallou nekkoon ambassadeur am ci biti ak ci biir réew mi aussi naka noonu bi Serigne Fallou la xool radiyallahu taala anhu wardaahu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ni mu demee ci Serigne Fallou la demee ci moom mu jël ko xëcc ko taf ko ci wetam def ko loxom day jooram ci jamono yooyu nag la yàlla defal tawfiq ci biir xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke sunuy waajur wommat nu ñun ñi ñëpp daal di ñuy teg ci loxoom mu toqi ñu ci xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad lu yàgg ñu xam ay jikkoom xam ay melokaanam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, teg ko ci wetam mu liggéeyal ko liggéey bu mucc ayib ci diirub xilaaf ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké lépp loo xam da ko teg ci lépp mu teg ko ci xam-xam akub taalibe akub yar mu nekk ku ñu naw amoon tamit ay relation yoo xam ne yu kawe la digganteem ak waa njabootu Cheikh eh, Serigne Touba gi muy kilifa yooyu ma wax muy ku fi mos a nekkal Serigne Touba wala muy doomam Cheikh Chouaïb bu mbacke nettali nañ ci ay xissa mom sax daan na wax ni daan na ñëw ba aksi fi di fa fëgg guddi di and ak mom ba ca guuy guuy taxay di guddii tok fa wéeru ca guuy ga jublu penku di jang ka ñaan ak ak jang jàng ak euh, tari mom mu tok fee di xaar bu ñu noppé ci digg guddii gi mu dellusiwaat ba aksi ñu Cheikh na mbacke Abdou wadou kon nañ koy jé kaddu gi rek. euh bokki no ngi ñepp di siyaare ñepp di ñaanal ñepp jamm di siyaare ñepp itam. kilifa gii fi bàyyi ko sëñ Mouhamadul Mahmoud Niang euh, moom nag xam naa seere ci moom moom daanaka benn baat rek doyoon na ci te moom la ñëpp di wax mooy ku baax la woon. moom naan baax du baax su baax <laughs> li ñuy wax détail yëpp yëpp yëpp buñ ko boolee rek mooy ku baax la woon ku baax la woon nag ci wàll yëpp ci wàll yëpp. loolu de am na ci nit ñi am na ñu bari ci nit ñi dañuy baax ci wet ci wàllu sàngam am na wàllu yooyu dañ cay baax wala seetu mbaax ci lay gën a fese moom nag yàlla di ko dimbale ba manees naa wax ne ci wàll yëpp la ak mbaaxam fese euh, damay wax it ne ak génnam àddina warta nekk lu nuy naqarloo ci anam gi bu ko génne warta nekk lu ñuy naqarloo waaye lu ñu war lu war sant yàlla la ndax ginnaaw génn àddina kenn du ci mucc kenn mënu cee mucc lu kenn dul mucc nag la ca nit mën a bëgg mooy bu koy def fekk mu gudd fan ba noppi fekk itam fanam woowu itam mu nekkoon ko ci la mu war a nekk yàlla dimbale na ko nag ba mu am yaar yooyu gàttulaaw fan te it dundam gépp itam ci lam mu war a nekk rek la ko nekkoon loolu nag anam googu nag ku ci demee sant yàlla lañ ci war a def ndax noonu ñii fi des ku ci xamoon ne dana am loolu day sant yàlla ndax mënunoo mënunoo bëgg lu ëpp loolu kon sant yàlla lañ ci war a def ci euh, anam gii mu demee mbaaxam googu may wax nag ne ci wàll yëpp la baaxe am na nag lu mu war lu mu gën a fese moom lu mu gën a fese li mu gën a fese moom ak woyof bokk na ci ak woyof bokk na ci ak yaatu bokk na ci yaatu ba mën a wuuf ñëpp am na ñoo xam ne ci laa bokk man boobu sax ma jiitu laa jàpp man euh, du seen waajur waaye mooy seen baay man loolu laay wax dama naan sëñ Abdoulaye doon man mooy sama waajur waaye sëñ Mouhamadou Mouhamadou Niang mooy sama baay noonu mu ko nekk ci man nekk na ko ci ñeneen ñu bari ñoo xam ne mooy seen baay bu dul seen waajur itam jàpp naa ne ñi muy seen waajur euh, ni mu doone ci ñoom baay damay foog ne sax ni mu doone ci man baay moo ëpp ni mu doone ci ñoom ñoom baay seen waajur la nag moom te du sama waajur waaye nag foog naa ne bu dee ci wàllu mbaay moom ni mu doone ci man baay moo ëpp ni mu doone ci ñoom baay te loolu ngir wone rek euh, ni mu mën a woofee nit mu muy woof ñëpp itam du leen xàjjale am na ñoo xam ne sax amuñ gànn gu mbokk amul sax xamante gu yàgg. waaye bi yàlla dogalee ñu seq rek bañ dugg ci loxoom ci la leen wuufe ci anam googu nga sëñ bu mag ba doon wax ne doon ko ñaan ak jam ay jamono ay jamono mu wax ne am na bi nga ñaan yàlla ne ko jirim yi maa ngi lay ñaan nga def boo ma fàtteloo leen nga fàtteloo leen seeni baay maanaam ma taxawu leen ba nga fàtte ba nga fàttaloon seen baay loolu moo wax dëgg yàlla yàlla defal na ko bu dul fàtte it moom xam nañ ne euh, daal fu leen bàyyi waroon féete féet na leen loolu ci wàll euh, bokk na ci li ko yàlla mayit muy ak taali bi moom fi ci àggoon moom neexut a melal fi mu ci àggoon neexut a melal nangul gi nanguloon waa kër sëñ bi ñim fi ñi ko fekk mu doon muskàllaf dëgg-dëgg tam muy sëñ fàllu sëñ nekkee xalifa ak sëñ Abdou Lahad ak sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir ak sëñ Saliou ñooñu seen xilaafa ñoo ko fekk mu doon muskàllaf ba noppi am kàttan kàttan ga mu am lépp nag ak xam-xam ba mu am ak xel ma mu am da leen koo jox kàttan ga mu am gépp ak xel ma mu am mépp ak xam-xam ba mu am bépp da koo jox ñooñu euh, muy sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdoul Khadir sëñ Saleh ñi topp seen ginnaaw bi ñuy ñëw fekk nañ kàttan deseetul kàttan googa waaye ñi nga xam ne daal fekk nañ ko kàttan moom kàttan gépp la leen jox ak ñi doon toon ay xalif xalifa te doon ay waa ko sëñ Touba sëñ Chouaïbou seen diggante diggante bu sori loon sëñ Moutala laa kenn du ko waxaale jigéen ñi soxna Assou Gawane moo ci moo ci moo ci magoon soxna moomi soxna mbeen ngaabu soxna may mii fi mujj ñoom ñëpp ku ci ne seen diggante diggante bu ñoom ñëpp ko gërëm daal ñoom ñëpp a ko gërëm moom gërëm lu wér wér loo xam ne euh, am nay seere yu ñu ci wax. Moussa bi maam rakk la ci sëñ bi. noo ngi leen koy seeral bu baax di ko seeral adduna sépp nañu xam ne. njabootam gii di njabootu boppam ñàkkuñu ñàkkuñu ko ñun ñi ñoo ñàkk ñun ñi nga xam ñoo doon ñoo ñu ko ci waxeen ñu di ko tuddee njabootu sëñ Afia ñëpp njabootu sëñ Afia la waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi koy tudd ñu di ñu tudd ñu di rakkam waaye muy suñu sëriñ tamate ko sëkk noonu ñoo ñàkk ndax kat kenn ku ci ne ci noonu bi nga xam ne sëñ Afia mi ngi fi bàyyi koom 64 kenn ku ci xam dara amut man mii booba dalaguma jàng ndax ba nga xamé sëñ yafi tàmbalil na mako itam sëñ Modou ci Modou Mamoun ci bopam moñu moñu moñu agalé la nga xamné la ci war lepp bu ngeen gisee sëñ bu soobi mu tok da ngeen xamné lepp lu nek ci mom rek sëñ Modou Mamoun ñang ko ci def ndax xamuñu suñ suñ suñ bay ci yoy jamono daf na daan wo dañu nax naxal di and ak nun doy doy doy lo ni ci lepp daram na buñu ko. sëñ asiyang ci jant bi teel. dafa bok ci min khiyari nas mooy tànnee fi nit ñi ndax loolu itam waxuñ ko la ngir sànni waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo la waxoon ne xayrukum man taala umruhu wa xasuna amaluhu ki gën ci yéen mooy ka nga xamante ni yàlla may na ko fan wu gudd ba noppi fan wu gudd woowee mu jeexal ko ci jëf ju rafet te loolu lañuy ñuy seere ci moom loolu rek daanaka doyoon ndax koo xamante ni yàlla may na ko mu dund fi lu tolloog lu jege téeméeri at ba noppi jëfam ji Euh, bi mu fi jógee ba léegi lépp seere yi nekk benn mooy ku baax ngi noonu nga xam ne boole woon na ñaar mooy saalix ak muslix saalix moom mooy nekk ku baax fexe ba baax moom ba nga feeñee ci askan bi mu bokk bu digg doomu bokk ak ñëpp itam nag wax bokk ci maamaar Mara Mbàkke bokk ci askanu aafe ak mbusoo bi ak Mbàkke askan woo xamante ni wax nañ ne ay ay ay siècle yu bare bare bari lañ leen xamee rek mooy diine ak tënk ci diine ak euh, tàngale tasaare njàngaleem lislaam loolu lañ leen xamee woon ku ca soqee ko ci mbaax rek lañuy ñuy séntu ci yow ngal la nag kon boo ca jaare te moom nag daf ca jaar jàng li mu war a jàng ba bokk ci doomi soxna yi liñ ko daan tuddee ba noppi nag kon baax na te amee mbaaxam googee fañ ko war a amee mooy jàng ko ba xam ko jëfe ko nekkoon jaamukatu yàlla waaye itam nag mu nekk itam muslix muslix mooy baax ba noppi wëlbatiku di baaxal ñeneen beneen garaat da ndax lu njëkk li rek baaxoon na de fexe fexe ba jàkk ba contrôler sa boppam ba diine ji ñuy yaakaar yow ak njub gi nga nekk ca baaxoon na doy itam tam waaye boo ca tegaat beneen garaat bi nag mooy nga nekk muslix di kuy baaxal keneen nag leneen la te moom mii nag yàlla baaxoon na ko mu nekk muslix mooy yéwénal ak baaxal ak jagal ñeneen jox sëñ Saal incha mu yëkkati ay kàddu ahadu billahi bismillahi inna wali yàlla mi ngi gane àdduna ci nekk sëriñ bi am na ñu wax ne 1926 am na ñu wax ne jiitu na ko tuuti waaye fekk na fi sëriñ bi moom sëriñ bi it moo joxe turam ñu wax ne bi mu ganee àdduna soxna Awa Buso di waajuru sëñ Fàllu di waajuru waajuram tamit ndax suñ fàllu moom Cheikhul Khadim ak sëriñ Xaafiye ñang mi waajuram ñoo bokk soxna Awa Bousso maanaam bi mu gënee àdduna soxna Awa Bousso dafa dem ci sëriñ bi wax ko ko mu ne ko nañ ko tuddee Mouhamadul Mahmoud ne ko yeen jolof-jolof yi nag ñu mën a yàq tur ngeen waaye fexe leen ba bu leen ko wax Mamour bu leen ko wax Mamoun dañ koy wax Mouhamadul Mahmoud moom laa ko tuddee. fekk amoon na ñaar ñaari ñaari magam yu ko jiitu woon ka ca mag sëriñ bi tudde woon ko Ahmadu ka ca topp Hamidou moom mu tudde ko Mouhamadul Mahmoud mu mel ne bayit woowu ci jës bul rek ni la sëriñ bi tegalee seeni tur ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farhatuna wal joodu musaddiyam loolu it lu yéeme yéeme la ndax dafa mel ne ñoom ñett ñoo ñi kenn ku ne la sëñ bi teg ci saw tur dafa feeñ ci sa ci sa dund ba ci ak mujjam ndax ne matul fukk fan juróom ma fi mujjee boo fekk na sax euh, télé gi ak mage gi jàpp na ko ba daanaka sawaratut ci wax waaye keroog dama ñëw ba tollook ay noppam nekko ko yaa ngi bëgg sëñ Tuubaa rek waaye dana bërit bi muy tële tële daal di tàcc loxo yi nii daal di téye dënd bi daal moom rek laa bëgg moom rek laa bëgg waaw.